daarul xuraan ca Touba daawu marnaan ci njiital Serigne Mactar Diène di daara junu sancoon ci atum 2006 mu nekkoon ci mbaaru seng ay ndongo yu bari mokkal fa alxuraanul karim daara jay dox boobaak léegi ak jéego yu am solo macha allah ak ñaanuk Serigne Saliou Mbacke xaadimu rasul mu nekk léegi complexe scolaire franco arabe bu méngook jamono état bu Sénégal reconnaître ko ñu fay jàngale alxuraanul karim arabe français yeneeni langue majalis yeneeni xeeti xam-xam ak njàngale métier di formation professionnelle muy complexe scolaire franco arabe maam awolo ca daaru marnaan ci njiital Serigne Mactar Diène am na fa cycle élémentaire moyen ak secondaire ndongo yi di fa génne ki lijaasay certificat d'études BFM ak baccalauréat di diplôme d'état daara ji li ko tax a jóg nag mooy jàngale xam-xam ni ko ku tedd ki Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké bëggee complexe Mame Awa Lo ca Daaru Marnaan taaru lool ànd ak bépp jumtukaay bu ndongo yi soxla ci seenaw nekkin ak jàng ay taax yu mucc ay bloc A ba ñu duppeekoo Daaru Alimou Kabir bloc B bi Njéene Lagan bloc C bi Touba Xelkom ak complexe scolaire franco-arabe Mame Awa ci njiital Serigne Mactar Diène njàngale mu mucc ayib ak ay jàngalekat yu xereñ lool yéen waajuru ndongo yi su ngeen bëggalee seen njaboot njàng mu baax ak avenir bu mucc ayib jokkoo ak ñoom mbindu mi tàmbali na weeru août ubbiteg école bi weeru octobre incha allah ngir jokkoo gi 33 978 90 90 wala 33 978 90 91 77 256 12 82 wala 77 404 99 03 complexe franco arabe Mam Awolo ak njiit la Serigne Maktar Diène di ñaan xalifa bu tedd bi sëriñ Muntaxa Mbàkke yàgg fi lool te ànd ak wér asiru ma al abraar xiina asiru wa zanna al وظن العدا أني هنا كثير مسيري مع الأخيار لله بالنبي وما لي لخير الله عود مسير يسير بي الجسب الذي قادني إلى كريم عليهما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجذتي liman kaana li bil juudi wa huwa sakuuru nusuuri wa ta'yiidi wa iti ladal idaa min alwaasi alwahaabi fa huwa nasiiru أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي قديما له وهو القديم يمير أجوري على الوحاب waaw maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare maa ngi tudd Pape Assane Diouf bokk ci comité de pilotage bi euh, bokk ci itam ci commission culturelle bi. jërëjëf balaa maa ñëw ci bisub tey sax damay ñëw ci bisub démb ndax euh, activités yi ñuy def fii ñaari fan la mooy vingt ak 21 20 mooy waajtaay bi 21 nag mooy dëgg-dëgg bis niñ ko waajee itam euh, du dara lu dul ni sëñ Tuubaa daan dundale mooy diggante njàngum alxuraan ak njàngum xasida démb. li tàmbalee 9h ba tàkkusaan euh, jël nañ ci ay kuréelu xasida yoo xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi fii biir Ndakaaru ñu jàng ku ci jàng jox sa morom euh, kuréel yi wuute na xasida yi wuute na biñ demee ba tàkkusaan nag euh, ñu def ko guddi goo xam ne dañ koo jagleel maam Cheikh Ibra Fall guddi gi li ci des ñu àggale ko ci zikrulaay mooy tudd yàlla ci baatu laa ilaha illallah tey jii nag bi ñu xëyee nga xam ne mooy kon bis 21 mooy ñaar fukk ak benn nga xam ne mooy dëgg-dëgg màggal gi 9 euh, ci lañ tàmble moom itam niñ ci itam mooy am nañ ci lu ëpp ñaar fukki kuréel yoo xam ne ay kuréelu xasida yu nekk biir Dakar kenn ku ci nekk dañ la jox ab temps booy jàng lu wala tool ci fanweeru minute boo xam ne da nga jël ab xasida ñëw jàng ko waaye lool nag jotiwul dara ak li ngay gis sama ginnaaw nga xam ne am na. ñoo xam ne alxuraan la ñuy jàng mooy ay kaamil lañuy jàng am ñoo xam ne ay xasida lañuy ñuy durus mooy yëkkatiwuñ ko waaye dañ koy jàng ci suuf ñooñu ñëpp nag kon ñoo ñoo booloo ànd ngir euh, màggal bis bi ndax sëñ Tuubaa moom bisam ni mu ko daan màggale weesuwul ci tudd yàlla mooy jàng alxuraan jàng xasida ak zikkër loolu itam kon moo fi am ñi nga xam ne ñoom nga gis itam ñoom laa àndal mooy ñi nga xam ne ci biir isbu tarxiya Euh, ñoo yore wàllu kuréel xasaayid yi nga xam ne boobu ba léegi itam ñu ngi ànd ak ñun di toppatoo kuréel yi di toppatoo daaj yi di ànd ak ñoom xasida yi ba nga xam ne euh, amul benn rëq-rëq ci organisation bi kon loolu moo tax mbaar mu mag mii nga gis euh, ñii ngi jàng xasida ñii ma féete ca kanam ñu ngi jàng alxuraan ñii nekk suñ ginnaaw nii ñu ngi jàng xasida waaye ci di ko durus yëkkatiwuñ ko ci tënk daal loolu mooy organisation bi waaw loolu de moom jotaay mooy sëñ bi moom sëñ Muntaxa képp ku ko xam xam ko ak xasida euh, képp ku ko xam itam xam ko ak isbu tarxiya ci njàngum xasida kon ginnaaw bëgg na bis bi mu doon bisub xasida bis boo xam ne dañ ciy jàng ndax nag sëñ Tuubaa mu ne su ko njukkale leneen lu dul alxuraan ak xasida ak lu ak lu wax ji bari bari sëñ Tuubaa moom li mu doon liggéeyal boromam jumtuwaay yooyu ci lañ ko mën a màggale jumtuwaay yi nag def ba muy dem te moo waral julli gi dafa waxoon ne rafiqi kitaabullaahi mooy sama àndandoo sama wetal mooy téeréb sunu borom bi ba mu àgg itam dafa waxoon ne jihaadiya bil aqlaam yi mooy maa ngi jihaad waaye sama xalima lay jihaade kon ñaari ngànnaay yi la yoroon ci géej gi mooy alxuraan ak xalimaam alxuraan moo nekk nii xalimaam mooy xase dañuy jànge kon isbu tarxiya bu ci dugg see loolu mooy tus bi mu ci indi mooy dañ fi jàng ay limi limi xasida ci yëkkati ko danañ fi jàng ay limi limi xasida ci jàng ko ci suuf waaye dinañ fi jàng ay limi limi kaamil te loolu yaakaar naa bu bilan bi génnee danañ xam ne jàng nañ ci lim bu am solo. waa xam communication moom boo xoolee li ci yokku ren mooy Hizbut Tarqiyyah dafa am lu ñuy wax les grandes expositions sur le mouridisme mooy ay ay gaaral yoo xam ne dañ koy def ci ay làkk di ci jàngale dundub sëñ Touba ñu tàmbale woon ko daan ko def grand màggal du Touba di ko def ci penc ma waaye ren jii ngir gën a euh, jox gëdd barab bi. dañoo créé lu ñuy wax les grandes expositions itinérantes mooy exposition yu ñu doon def màggal ci kër sëñ Fallou buntu kër sañ Fallou dañoo wax ne dañoo décidé dootul yem Touba dañoo bëgg a wër Sénégal fu ne ñu yóbbu ko fa. loolu nag fii lañ ko tàmbalee ci ndakaaru gii moo nekk suñ ginnaaw muy exposition boo xam ne ku fa dugg di xam dundub sëñ tubaa thème mu ren bi doon l'universalité de la mission de Cheikh Amadou Bamba mooy wane na sëñ Touba euh, bawol bawol sénégalais moomu ko nit ku ñuul ñoo moomu ko bataaxalam c'est un message universel boo demee foofu di nga fa ay borom xam-xam def nañ fa ay conférence def nañ fa ay panel def nañ fa ay ay ay gaaral yoo xam ne ku fa dugg di nga gis ay jàngale ak yi tënk yu bari yoo xam ne ci ci dundub Sëñ Tuubaa feeñ na ci loolu itam yaakaar naa ne benn yokkute la bu dellusiwaat ci biir communication bi nga xam ne Hizbut Tarqiyyah bi muy bi muy ànd ak soxna si ci ci màggal gi loolu itam yokk nañ ko ci ay innovation ren màggal ak gaaw ndax gis nañu ne de weesuwul nekk ci nekk ci mbir rek ndax ñun dafa am lu ñu jàngal euh, suñ jëwriñ ji si ñaatu yal na suñu borom sotti yërmandeem ci kawam daf ñu daan wax ne yéen da ngeen war a doon des hommes multitâche multifonction multitâche multifonction mooy boole lu bari ci kenn nit di ko def moo tax ñun waajal màggal gi. yàqaluñu di dajeeg waa comité bi nga xam ne ñooy waajal julli géej gi boo demoon tey kër sëñ Muntaxa bis bu yàlla sàkk muy guddi ak bëccëg am na kuréelu xasida yoo xam ne ñooy ànd ak sëñ bi di dundal weeru gàmmu gi programme boobu ñu ngi koy tënk di ko ànd ak ñoom te yàqul dara ci li ñuy def nga xam ne bis bu ne 9h30 ba 10h30 sëñ bi dana toog kuréel bi jàng guddi 21h30 ba 22h30 sëñ bi dana toog kuréel gi ab kuréel jàng te kuréel bu jàng doo ñëwaat noonu lañ koy def ba guddi gàmmu ñu def ay barab yu bokkul yoo xam ne fu ne lu lu néew néew fukki kuréel ak ndàngam dañu fa toog di jàng loolu nag nos giñ koy nos ak sax giñ sax ci liggéey ndax ñii la ñuy liggéey muy seen métier yàqul dara ci xalaat yi ñuy xalaat ngir liggéey bi jëm ci kanam guddi ak bëccëg ñu ngi ciy ñu ngi ciy ñu ngi ciy ñu ngi ciy nos di xool ni mu gën a baaxee di xool ñi mu yokk kon dafa mujj doon suñu dund doon googu mu doon suñu dund nag moo tax ñu mën a boole événement yu bari mën koo waaj ci diir bu gàtt loolu rek mooy secret bi waaw kon ñoo ngi ñoo ngi leen sant bu baax di ñaanal Cheikh Modou Mountakha Mbacké gudd fan ak wér di ñaan it bis bi lim ci naal yëpp ak lim ci gis ba wax ne nañ ci jàpp ñu mu am ci lu kawe ak njortam te ñu yàgg koo ànd ak moom te sunu borom def ci tawféex ba nga xam ne at mu nekk rek dana gàcceel at ma ko weesu ci bark sëriñ bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal. Fakirim bihi rabban. نفى عني العداء وساق المنى لي والجناب حقير هزيل